ziar bu baax a baax mm-hmm. di nuyu aussi euh, Dia aussi mm-hmm. Diawo di nuyu aussi euh, waa TFM yëpp ci bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy mu nekk un travail remarquable surtout nag ci côté inondation yi fan yi merci beaucoup jërëjëf Abdou mm-hmm. Samad Diouf euh, président du mouvement zéro inondation ci kanam tuuti daañu woyal suñu waxtaan ma fàttali ne Daouda Mine itam dina fi teew ci jàngat bi léegi-léegi ñu bàyyi leen ak Cheikh Tidiane mu dégtal leen xibaar yi fàtti xibaar yi dañ koy tàmbale ak réunion d'urgence bi nga xam ne démb lañ ko organisé woon fële ca ministère de l'intérieur ñu def ñuy wax état des lieux te ñu gis daal mooy zone yu bari ci réew mi euh, mbënd bi laal na ko banlieue dakaroise ba Touba Ndar bokk na ci ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome dellu si ci plan Orsec bi di ñaan rek acteur yi euh, ñu def ci euh, lu gaaw ànd ak efficacité ci exécution plan boobule ngir fexe rek euh, ba secourir ñi nga xamee ne ñoom ñoo loru ci euh, mbënd bi euh, moom Antoine Félix Diome sax amaloon tournée ci banlieue bi dem ci gox yu bari yi nga xame ni mbënd bi daf leen sonal ba mu yëkkati fa ay kàddu ne jamono ji ñuy wax ak yéen moom ministre de l'intérieur jàpp ni situation bi mu nga sous contrôle waaye loolu taxul ni fa la fële ca Tivaouane saw ay jeunes ñoo fa génn bloqué. autoroute à bi di wax rek euh, ngir ñu évacuer euh, ndoxu taw yi nga xamee ni moom moo songu seen i dëkkuwaay euh, jamono ji loolu tax ba ñi nga xamee ni ñooy yor borom ndaamaar yi ci autoroute bi sonnoon nañu lool démb ci dimanche bi. banlieue bi tamit euh, fees dell ak euh, ndox euh, loolu tax ñuy laaj ñi nga xame ni ñoo loro ci yan anam lañuy fanaane dem nañu fële ca quartier Afia bu lëmbal sud te la fa gis doy na waar loolu ñu teewlu ci reportage u Chérif Dia ak Modou Diop. quartier Afia yëmbal sud fii foo natt coono askan wi weesu na ko ndax mbënd mi. amun fun jëm guddi gi xalaatu nelaw rawatina xiif di leen yoot aw fu ma ko teg gaz bi dama koy teg ci kaw lal bi gaz bi ci kaw bi laa koy teg xale yi téye ndiggal gaz bi may tàngal kafe gi di dund lu metti nii la fanaane damay fanaane xoole ba bet set ku nu yaram dimbalañ te yàlla tax koo xamante ne dafa am coona néew si doole bu amul doole bu ko fa lii fekkee day gën a metti néew si doole boo xam ne day dëpp ci nam bu ko fa lii gën a fekkee day gën a fande ñàkk fun jëm tax na njaboot yi ne dañuy dund ci ndox mi pour ñu lekk faaw ñu tegale ay brique ngir gaz bi tàkk sonn rek dem na ba sax fa suñ courant bi gis nga ko ndox mi dafa yéeg ci miir bi courant bi gis nga ko nii gis nga fekk ci lëndëm bi ngeenu fekk ndax dafay maas am na làmp yëpp lakk gis nga sama làmp néeg bi nii tele bi moom laay leeral gis nga ko xoolal gis nga suñu duus yi yëpp danoo indoone nga ko ci kaw dama doon julli ci kaw la ñuy jullee fële nii toggee fële nii añee fële reer gis nga ko xale yi sama wujj bi ay neppant la yor dañu gis sooy sooy yewwoo am foo sa tànk gis nga ko kër mi ngi nii amul fi fenn fu fi nit mën a bu gudd jotee coono yi gën a tar xale yi xëy na mën na leen yóbbu ci njaboot yi mbënn mi sonalut ñu mag ñi daal di fiy des guddi gu yàgg sax la ñuy paase. xewle gi moom ci bëccëg fii la gaa yi taal soxna yi fii lañ togg añ waaw bu ñuy kiit bu ñuy reer wala deme na ko noonu it dañuy teg rek mën a reer reer tëdd ama booy yi ñu bëri dañoo dem tëddi seen kër nijaay lañ dem. lu soriwul dara kër njabootu ay dara fii it naka noonu ñu fekk fa soxna su jaaxle lool moom daanaka. ci lëndëm turus la nekk. lu ñu mën a kiiwal suñu bopp di ñam-ñabar dañuy sëkk sëkk daaw bi nawet bi jàllee sëkk naa fii ba sëkk ba bi ma mën bi ma mën ndox ci ndox mi lañuy fanaan amuñu moustiquaire amuñu lenn yooyu di ñu bëgg a rey ñoo ngi nii ñoo ngi nii rek nekk fi di muñ di muñ te gisuñu kenn ku ñu dimbali nag ci ndox mi. image yu doy yi. ci la askanu Afia bu yëmbal sud nekkee guddeeg bëccëg bi mbënn mi tàmbalee ba léegi mu mel ni quartier bii di Afia wuyuwul turam dara rawatina jamonoy nawet. nañu dimbale doomu aadama yi te yàlla tax yàgg nañoo fande voilà dañuy euh, des ci inondation yi ak tournée ministre de l' intérieur boobu ñu leen doon wax Antoine Félix Diome euh, visité woon euh, banlieue bi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy dund bi mu paree nag yëkkati na ay kàddu ne situation bi jamono ji mi ngi sous contrôle dañ koy teewlu ci micro bi fay. am na ay gox yu bëri yoo xamante ni ndox bi am na jafe-jafe bu mu jural ñi dëkkee ci gox yooyu ma tudd léegi mu doon loo xamante ni bi mu amee ba léegi. service su état bi ñi ngi ci liggéey li jëm ci wàllu pomp wala li jëm ci wàllu taxawu ñi ngi ci nekkoon waaye dafa am mbir fu muy tollu te noonu la tëddee ci wàllu doxalinu état su fekkente ni dafa aaju ñu gën a baral wala ñu gën a euh, yokk li nga xamante ni moom la ñu waajaloon ngir taxawu askan wi dafay laaj li ñuy wax plan orseck ñu déclenché ko ci loolu nag le président de la république joxe ndigal ni loolu di plan Orsec nañ ko daldi tëral suñ ko xesee tëral lépp day mujj wuy ju wuy wuy si ci ñu gën a euh, organiser wu à partir di fii di ministère de l'intérieur lépp luy service su jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy mbënd mi euh, ñu indi seen xam-xam indi seen xalaat waaye tamit ministère des finances bi nga xamante ne moom moo yor wàllu keesu réew bi directeur général budget teewal ko fii ñëw toog ñu xool naka la ñuy saafaree saafaraa ci ni mu gën a gaawee ak ci ni mu gën a baaxee li nga xamante ni mooy euh, jafe-jafe yi nga xamante ni euh, suñu mbokk yi yi nekk ci yenn gox yi am nañ ko ginnaaw bi suñu borom dogalee taw yooyu wàcc ci réew mi. gune yi ñu ngi lab ci géej gi ba léegi fële ca ndar nag ca goxu mbaaj ci plage yu salsal ñaari xale yu góor ñoom ñoo fa lab démb ci dibeer gi la woon kenn ki nag jot nañu ko gis boo yóbbu koor ba ci hôpital régional bu ndar keneen ki ci des nag ñu ngay wëy di ko seet ca géej gi ca accès Linguère Matam nag accident moo fa am benn oto moom moo fa këppu ba benn nit ñàkk ci bakkanam di waaj di ma ngay wuyoo Abdoulaye Sow amoon na ñaar fukki at ak euh, juróom chauffeur ba nga xamee ne moo doon daw oto ba nag dafa mujj daw. ñi dem fële ca Bambilor foofu nag gune ya fa nekk dañ doon manifester taal ay pono li ñuy naqaru daal mooy lu toll ci cinq mille mètres carrés yoo xam ne ni dañ ko jël jagleel ko ay nit dañu ñu ngi ciy joxoñ service bu cadastre urbanisme ak euh, domaine te nee ñu site boobu ay infrastructure sociale de base euh, ñoom dañu fa war a accueillir ci leeral ñu teewlu ci reportage yu Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb À l'origine, une seule personne était accusée de vouloir faire main basse sur une parcelle de 500 mètres carrés. Quelques jours après, trois prétendants se signalent une forfaiture qui ne passera pas selon des jeunes de Bambilor. ci ndorteel li kenn nit képp la ñu jiñoon ne moo bëgg teg loxo ci parcelle bu toll ci juróomi junniy mètres carrés ay fan lañu ci tekk ñu daat ci tuddaat yeneen ñetti doomu aadama lu nu mel nag ñu ne du fa am bu ñu sukkandikoo ci ndaw yi Bambilor yi ñoom ñi nga xam ne nag dañuy ñaawlu seen suuf si nga xam ne dañoo dëkke di ko jël li ñu moom duñ ko xëccoo lii nag alerte dong la dañ doon wone ne suñu yëf ñoo ko moom suñu yëf yooyu ñu moom nag képp ku bëgg a ñëw fokkarti ko di nga fi fekk Bambilor yëpp ndaxte yàlla dimbali ñu ba Bambilor yëpp joxante loxo seetuñu parti bii la wala parti bële mais Bambilor moo fi taxaw njabootu Bambilor yëpp ñoo fi taxaw joxante nañ loxo incha allah lu fi ñëwati itam noonu la ñuy def. ñi nga xam ne waroon ñaxtu nag di le ne bërëb boobee le war nañ faa mën a def ay jumtuwaay yoo xam ne ñëpp ñoo koy bokk. am ñu dugg si bureau signeel ay nit ay kayit ne leen dem leen ngeen jël suufu Mbambilor ci jamono boobu fekk Mbambilor yëpp ñu ngi taxaw di xeex di wër di ut fu ñu def centre de santé hôpital gare routière terrain de football euh, ak cimetière mu tekki ne. ñun ñu ngi am ay jafe-jafe yu bëri ci am suuf ñu ne nag balaa ngay jox ñeenti nit alalu dëkkub lëmm ñun duñ ko nangu. ngir nag fexe ñu daal leen di dégg ñoom ñi leen nag dañoo baare woon yoon wa tey xam ne nag ne dinañu amalaata lu ni mel la bu fekkee ne amul saafara ci seen sàkku teef googelee Euh, dañuy dem ca Mbour nag wax ci taalibe euh, Seydina Mouhamadou Gaye ñoom nag comme ni niñ koy faral di defee euh, bés bu njëkk ci en musulman dañu doon wër mbedd Mbour yi di wane seeni ànd ak seeni i fas-fas ak seen gëm-gëm bi nga xamee ni gëm nañu ko yàlla di ñaan tamit mu sotti ay ngëneelam ci Sénégal ak àdduna bi. fii loolu démb la doon am fële ca Mbuur dañuy dem bitim réew wax ci Haïti foofu nag protection civile ma ngay euh, lijjanti stratégie d'acheminement maanaam euh, ndimbal bi nga xamee ni dañ koy jagleel askan wa ndaxte ëmpulewu leen ni foofu ab semaine a ngi nii dafa amoon benn séisme maanaam suuf si moom moo fa yëngatu woon ca bët saalum euh, réew ma bilan bi yokk lu ëpp ñaari junne doomu aadama faatu ci euh, lu toll ci ñetti téeméer ak genn wàll fi mu nekk nii dañ leen porté disparu euh, fi mu nekk nii nag ay hélicoptère lañu jàpp ni moom moo mën a àndeel ndimbal foofu ca askan wa ngir ñu mën ci jëriñoo ca Liban euh, foofu namit euh, crise bu doy waar moo fay am ci wàllub euh, lekk bi ak ndox bi tamit mise en garde boobu nag chef syndicat des importateurs de produits alimentaires moom moo ko wax banque mondiale moom gis ni situation bi nga xam ni moom moo am ca Liban jamono ji gisul crise bu ko gën a doy waar ci vingt et unième siècle bi ba mu duggee ba léegi ci Afghanistan foofu nag Joe Biden di yaakaar ni daal évacuation manifestation yi dinañu ko dakkal laata ñaar fukki fan ak benn ci weeru août bi euh, di date la boo xam ne moom la ñu fixé woon sax euh, ngir retrait complet troupes américaines yi am waaye du ñàkk euh, ñu amal ci extension su yëf yi matul foofu ca Afghanistan sax taliban yi ña ngay annoncé ni dinañ amal cong euh, vallée du Panchir nga xam ne moom moo leen fa dese vallée boobu daal fi mu nekk nii mooy def résistance te résistance boobu ki ko jiite di Ahmad euh, Massoud moom daal nee na pare na ngir euh, xeex ak ñoom waaye jamono ji ba léegi nag gis nañ ni dara yëngatoogu fa soxna Fatick lii moo fi gënoon fës ci xibaar.